nga xam ni moom mooy juróomi atu kaso naka noonu aussi moom mi ngi nuy continuer di ñu ah, ci li nga xam ni moo di conseil constitutionnel amul benn prérogative si li nga xam ni moom mooy discipline ñeel ci li nga xam ni moom mooy waa conseil constitutionnel naka noonu aussi sur le plan pénal ñooñu amuñu ci benn prérogative donc mënuñu leen attaquer si benn plan bu sukkandikoo ci L59 moom nag dafa daal di jox prérogative assemblée nationale pour nu mën a saytu lépp loo xam ne dafa àll daal dafa sàllook li nga xam ni moo di voté ay loi contrôler action gouvernementale waaye aussi évaluer li nga xam ni moom mooy yi seen prérogative si ñett yooyu la a euh, yem donc li nga xam ni mooy pouvoir judiciaire moom Daouda Mine dinu dikk ñu na si li nga xam ni moo di L 88 bu conseil constitutionnel mi ngi nuy xamal ni le pouvoir judiciaire dafa nekk organe boo xam ni organe bu indépendant la kenn rek moo ko mën a attaqué euh, mooy euh, li nga xam ni moom mooy euh, conseil euh, constitutionnel cour des comptes cour suprême ak li nga xam ne moom mooy les cours et tribunaux moom mi ngi nuy xamal ne sur le plan disciplinaire L9 dafa daal di constituer li nga xam ni moom mooy conseil euh, supérieur de la magistrature ñooñu rek ñoom ñoo leen mën a attaquer si li nga xam ne nag mooy sur le plan disciplinaire quant si li nga xam ni moom mooy sur le plan infraction moom daaru min daal di dikk ñun si li nga xam ni moo di L102 dafa daal di nuy wax ni loolu nag bu fekkee dafa am kii di procureur général de la cour suprême rek moo mën a daal di enclenché benn procédure contre ci li nga xam ne nag moo di magistrat bu daal di def li nga xam ni moo di infraction boobu moom daaw demee mën sukkandikoo ci ay kàddoom ba tey mu daal nuy xamal ni lii di L 82 bu conseil constitutionnel sauf li nga xam ni moo di benn. Euh, benn magistrat dañ ko jàppee si li nga xam ni moo di flagrant délit loolu conseiller constitutionnel bu dafa daal di joxe euh, li nga xam ne moo di autorisation pour nu mën a saytu kii di magistrat boobu moom daax du min daal di nar keppeek kàddoom ni lu xew fële ci assemblée nationale lenn rek la si war a mën a jàpp que dafa nekk benn affaire boo xam ne dañ ko teg juste pour enclencher benn démarche politique ndax jàpp ne loolu mënul am benn jeexital ñeel nag moo ci euh, conseil euh, constitutionnel moom aussi nuyu daal di fàttaliku rek communiqué bi nga xam ni waa conseil constitutionnel génne woon nañu ko dina xamal ni ñoom fas yéene wuñu jàkkaarloog ay député euh, pour mu leen di entendre ci li comme nu nu gisee woon ci dossier ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko ban ko bëggee yóbbu moom dafa leen dafa leen xamal ni moom ab député la te député balaa nga koy daal yóbbu ci kanam yoon il faut nga daal teggi immunité parlementaire magistrat yu nekk fële ca conseil constitutionnel ba moo ginnaaw ba ma la nuyoo pare di la jaajëfal di am mbégte di ànd ak yow ci waxtaan wi mm-hmm. mbirum assemblée nationale groupe euh, li nga xam ni euh, moom mooy enquête parlementaire euh, bi député yi ubbi gis nga Daouda Man Daouda Mine kàddu yi nga xam ni jot nañu si wax mu ñuy xamal ni. Mhm. loolu dafa nekk benn démarche politique waaye sur le plan judiciaire du indi benn njeexital alors tey jii député yi bu ñu xamee loolu. Mhm. lan mooy doon suite bi bu nu amee li nga xam ne nag moo di information yu ñu bëgg. waaw pour man loolu mooy maa ngi nuyu bu baax internet yi encore une fois. Mhm. pour man loolu moom mooy question bi ñëpp di posé wu ci contexte bi ñu nekk cest à Euh, ubbi wala mettre en place ab euh, commission d'enquête parlementaire c'est bien assemblée seen droit la war nañ ko mën a def uh-huh. mais nekkuñu fi ngir di euh, di juger wala di teg ci yoon ku nga xamante ne ni moom moo di le juge constitutionnel uh-huh. parce que bu fekkee ni dañoo am ay preuves yuy wane ne parce que mbir mi dama jàpp ne dafa am li gën a direct mooy bu fekkee ne ñoom dañu am ay preuves yuy wane ne dafa parce que xam nga il faut ñu def la différence entre diw mii Euh, dafa dañu ko corompre ak non dañoo am soupçon de corruption parce que soupçon de corruption mooy loo xam ne kenn mënu ko comprendre. man tey su ma neexee ma xool la ba mu neex la ma ne dama am soupçon ci leneen leneen. soupçon moom mooy loo xam ne yaa ko xalaatal sa bopp sa xalaatum bopp la. léegi. Euh, ci euh, démarché boobu am ca assemblée nationale. au début on par on nous parle de soupçon bon soupçon sax boo xam ne entre guillemets parce que soupçon boo xam ne yow da ngaa dem ay détails par rapport ak li dem ba taamu ci ñaari juge wax ay lien de parenté yu ñu am ak ñenn ñi di euh, avancer ay kàddu bay wax ne euh, loolee dafa dafa dafa dafa concerné deux personnes yooyu. Uh-huh. et que dañ leen a fay ngir ñu génne Bassirou Diomaye Faye ngir ñu euh, ngir ñu dugal Bassirou Diomaye Faye ngir ñu génne Karim Wade. ay info kay loolu nekkatul soupçon. Uh-huh. léegi peut-être ci plan boobu li ñu ciy ragal mooy xëy na wax directement wala tuumaal directement koo xamante ne ni juge la ndax gis nañu. Euh, plant bi nga xamante ne le juge euh, constitutionnel Cheikh Ndiaye dugal na ko uh-huh. donc pour man mbir mi euh, amuñu xëy na fitu jàkkaarloo directement ak ak ak juge constitutionnel bi. Uh-huh. tout mal leen ouvertement wax ni diw mi moo def lii parce que su booba peut-être dafay compliqué ci seen côté. Uh-huh. mais doxalin démarche bi ñu jël daal man damaa jàpp ne xeetu dilatoire la yoo xam ne liñ ci jublu. mooy di lëndëmal mbir yi. c'est vrai que cons assemblée nationale. mënu la àtte ñooñee. bu fekkoon ne ñoom tey li ñuy wax dañoo am preuve bi mais am na feneen fu ñu ko mën a jaaree fu gën a gaaw. exactement foo xamante ne ab plainte lay doon wala quelque chose comme sax ngir ñu lijjanti lu jëm ci loolu. mais dem ubbi ab commission d' enquête parlementaire. léegi dem nañ ba ci biir waxatuñu sax la jëm ca mbirum euh, corruption boobu. dem ba assemblée nationale ci bi ñuy voté lu jëm ci euh, commission d' enquête parlementaire bi ñu koy mettre en place. waxatuñu waxu corruption la ñu fay wax mooy report d' élection. report d'élection sur quelle base base ba bàyyi nga ko waxatoo ko. mais est-ce que tey jii si ay soupçon maanaam ay mbir yoo xam ni euh, amagoo ci preuve bu palpable mën nga si sukkandiku pour enclencher li nga xam ne nag moom mooy ay enquête ñee la ci li nga xam ne nag moo di. ay ay ay magistrats. pour pour être simple. pour être simple noppal suñu bopp noppal ñi ñuy seetaan. le problème c'est pas un problème de assemblée nationale beeg. Euh, commission d'enquête parlementaire beeg euh, juge constitutionnel bu ñu ger problème bi du loolu le problème mooy on vers des élections et il y a parmi ñi nekk ci géopolitique bi des gens yoo xam ne parewuñ pour dem ci élection présidentielle mooy ñan ñi nekk di def man manigance yi. parce que mooy mooy mooy waa PDS moo ko jiite. Mhm. ñu dem ba gis ñu bokk ci kaw pouvoir di di leen jàppale ci combat boobu. voilà foofu laa bëgg et même dugg ci biir combat boobu pourquoi. lan la ci jublu voilà nu taxaw si entre li nga xam ne moo di taxawu Sénégal ak APR. parce que ñoom ñaar tey jii booy xool amuñu benn problème si élection présidentielle 2024 yi. Khalifa Sall euh, dimanche incha dina battre campagne de même aussi ki nga xam moo di Amadou Ba APR. donc ñoom lan mooy seen responsable ci li nga xam ne nag mooy li am waa xam nga bokk ci campagne. Uh-huh. bokk nekk candidat dafa wuuteeg euh, xaw ma ko mën a expliquer c'est-à-dire euh, ñoom. Uh-huh. Karim Wade mi nga xam ne ni bokkul ci élection yi. Uh-huh. yenn saa yi dangay nekk candidat sa tur nekk ci liste officielle bi te daanaka sa situation ak situation wu Karim sorentewul. exactement parce que actuellement mais imagine aujourd'hui un Khalifa Sall qui est ñu bëgg c'est-à-dire moom ci boppam muy taxaw di wax ne ñun waxuñu euh, waxu report d'élection uh-huh. nga gis ay député PDS taxaw à l'Assemblée nationale di wax ne élection bi su jëree ñu reporté ko fii ak tant de at nañ ko def uh-huh. bu jëree dix ans nañ ko def uh-huh. yow xalifa Sall say député ñu dem di jàppale kooku ca li muy wax ne dañuy mettre en place benn comité euh, kii da da xaw ma euh, commission d'enquête parlementaire waa léegi loolu lan lañ ci jublu c'est parce que ces gens-là ont compris que élection yi nii bu ñu ci demee xëy na gisuñu ci seen bopp. kon yow da nga jàpp ni dëgg-dëgg gisuñu ko si. ñu bëgg créer ay conditions yoo xamante ne dina mën a indi report d'élection. kon da nga jàpp ni Amadou Ba. Euh, Khalifa Abacar Sall. waaw mënu reporter élection yi seen intérêt mi ngi si nekk. Ah, parce que loolu lañ nekk di doxal. ban ban intérêt lañ ci war a mën a am. Uh-huh. lan moo war a mën a tax des députés de Benno Bokk Yaakaar bon du ma indexé directement Amadou Ba. parce uh-huh. que on sait que euh, il est pas acteur si lépp luy nekk di xew ci camp pouvoir bi. Uh-huh. c'est ça la réalité député yi. est-ce que moom mooy dogal lu ñuy def ak moom dogalu ko actuellement il y a le patron qui est Macky tout le temps li ma leer ba leer mooy député yooyu mënuñu def lenn lu ump Macky Sall mbaa lenn loo xam ne Macky Sall àndu ci exactement léegi le problème qui se pose mooy la tax ñu bëgg a coûte que coûte indi ay euh, créer ay conditions yoo xamante ne nii dina leen permettre ñu mën a indi waxuma sax report parce que report moom jàpp naa ne mënatul nekk parce que déjà ñoom li ñu bëggoon jëf xëy na am na lu mu doon demee mu mun a am possibilité boobu c'est-à-dire euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, ces juges constitutionnels là am na nu ñu doon taxawee wala am na nu leen mbir mi doon affecté xëy na am na nu ñuy taxawee mën a mu mën a créer euh, circonstance bu indi report d'élection uh-huh. mais actuellement léegi plainte bi juge constitutionnel bi dugal naan lañ koy def waaw uh-huh. c'est la question que tout le monde se pose. question loolu ma doon nga def yitte ci lee. man ana procureur moom la plainte bële moom it lu muy def par rapport ak loolu parce que ñii c'est des gens yoo xam ne nii c'est des magistrats ñu jël leen teg seen kaw tuuma yu diis. ñoom ñu ah. génn porter plainte pour diffamation ak yeneen i chef d'accusation. la ñuy xaar ci loolu. pour man le problème mooy actuellement on va vers des élections ah. li des ci ay fan lu ñu compter la yaa ko wax léegi fii ak deux trois jours dañuy dugg ci campagne électorale bi. Ah. waaw mais léegi lan moo tax période boobu noonu est-ce que député wu wallu war na am waxuma sax wàllu député wu taxaw actuellement il a son candidat qui est uh-huh. est-ce que war na tal leneen lu dul dem dem campagne jël euh, candidat exactement donc lenn rek laa ci war mën tiire comme conclusion ay ñi bokk benn bokk yaakaar. Uh-huh. actuellement on est premier les élections c'est pour le vingt cinq. Uh-huh. est-ce que ki bokk benn bokk yaakaar war na am beneen yitte. bu dul dem campagne yi di Amadou Ba. léegi boo fa bàyyee loolu dem defi ji leneen loo ci jublu c'est ça qui cause problème. exactement loolu moo jaaxal Sénégal yi moo tax ma laaj la ni la taxawaayu ñi nga xam ne a mm-hmm. ñoo di waa PDS mais tey jii bu fekkee lépp jàll ba nu àgg sa élection présidentielle 2024. Mm-hmm. PDS amul li nga xam ne moo di candidat comme ni ñu ko gisee nii. Mm-hmm. lan nga yaakaar ne moo doon seen taxawaay ci élection présidentielle du ma lekk ci cere yi naa ci xëpp mooy élection présidentielle am na. Uh-huh. ñu am seen candidat si seen ay circonstances yoo xamante ne ñoom ñoo ko maîtriser. Uh-huh. mbirum nationalité ak déet en tout cas ñun gis nañu lu xew. Uh-huh. Euh, Karim Wade en tant que candidat. man de euh, gis nga nit looy def lu ne am na lu mu la war a jaral. absolument c'est-à-dire la bu war a ñëw 313 digital sax dina ko jaral teel a yeewu. c'est-à-dire loo war a def lu ne war na am lu mu la jaral. absolument a yeewu nag ci Karim Wade moo doon mu teel a lijjanti lu jëm ci mbirum nationalité boobee. Uh-huh. c'est-à-dire bu ko mënee def cinq ans avant c'est-à-dire bu ñu jógee deux mille dix neuf. deux mille vingt na lijjanti loolu féete côté. c'est-à-dire mu leer ko ne bu ñu demee ba élection wu deux mille vingt quatre bu fekkee ne jaral na ko. Uh-huh. mu leer ko ne bu ñu yeggee ci élection wu deux mille vingt quatre ay problème mu nationalité dootuñu ko waxati. waaw mais yow nga bëgg a nekk président wu Sénégal ñu naan am nga nationalité ak amoon ko ngay jël coow loolu di ko di bàyyi mu sedd ñuy ja bàyyi mu jàll ñu dem ba nga dugal sa ay dossier conseil constitutionnel et là on se rend compte que actuellement xam nga jamono fi mu toll la te ñoom yenn saa yi seen i doxalin mbir yi daf leen raw uh-huh. mooy aujourd'hui tout est digitalisé exactement à travers de site bi nga xam ne moom mooy euh, moom moo nekk fële ca ca ca France ca ah. ministère bu de l'intérieur bu France. Ah, ah. ñu gis ne mën nga vérifier euh, li nga xam ne ñoom ñoo nekk ci fichier wu France. des gens sont allés vérifier sur le site et ils ont vu que Karim Wade est bien ci biir site. Euh, ci biir fichier électoral de France lii c'est des faits kenn sosalu la. mais li xew biir Sénégal fii assemblée nationale coow li dafa mel ni Karim Meïssa Wade moom dafa soofantal mbir mi ndax démb mënu adopté li nga xam nag moo di moo di commission d'enquête boobu moom fu mu toog dafa daal di euh, publier di xamal ni di jubilé que gagné na li nga xam ne moo di première marche bi mu des li nga xam nag mooy ñu report élection yi moom tey ji dafa mel ni liy xew fii yépp yoonam nekku si moom ce qui est l'essentiel report élection yi léegi c'est ça le problème léegi moom man jëlee bëgg-bëgg la am mooy nañu wala ki koy loolu moom lu bëgg surtout mouvance présidentielle. c'est ça le problème. Mhm. <laughs> pour man li ma la moo tax ma ne la depuis le début dama la ko résumer ci benn affaire. Mhm. dama la wax ku ci ne ci ñoom sa problème. Mhm. Karim Wade dafa bokk ci élection mu ne élection du fi amee ndax bokkuma ci. léegi ñeneen ñi sa des ña koy jàppale ci loolu man ñoom ñooy samay problème. parce que euh, Khalifa Sall ki figure ci liste vingt personnes. yi war a nekk candidat ci élection yi ñu jëm. ay député yom dem euh, di di di di appuyer loolee. ba Benno Bokk Yaakaar ñenn ci ñoom di leen di appuyer loolu laa lañ ci jublu. c'est quoi le problème. pour man daal euh, moment bi ñu toll nii benn yitte la Sénégalais yi war a am. Mhm. mooy <laughs> ñi war a campagne yi dem campagne yi. voté moment. Ah. Mhm. soobee yàlla gëm naa ne le 25 février dinañu voté. parce que amuñu possibilité pour def loolu. et que liñ ci mhm. jublu gis nga parti nañ waxante dëgg. dafa am parti maanaam c'est-à-dire pour. Euh, semé kawo wala uh-huh. jaxase am réew uh-huh. dafa am benn représentativité bu bu parti bi war a am uh-huh. gis nañu gis nga at yi ñu weesu yëpp euh, coow li ni mu bëree woon ci ci mbirum Ousmane Sonko ak yu demee noonu xam nga lu war a lool. c'est parce que ce parti la dafa am benn représentativité bu ñu am bu mu am ci biir population bi. Ah, exactement parti boobu ay mbiram bu xewee rek mën na am lu mu jur. mais aujourd'hui ban sénégalais moo mën a c'est-à-dire kan moo mën comprendre aujourd'hui uh-huh. ñu bëgg forcément créer benn climat wu bon dëkk bi actuellement am na coow dem nañ assemblée xeex nañ xeex bi foofu la yem ñaari nit ñooñu fa la yem. Uh-huh. te xeexuñ sax benn nit moo doon coow moo doon coow moo doon songe. Uh-huh. donc problème bi c'est ça mooy actuellement Sénégal amul problème. amul kaawoo. peut-être la doon xaar ci euh, situation yu bari yu fi xew mooy euh, yenn yëngu-yëngu yi am fi ngir pousse élection yi. parce que depuis le Euh, askan wi ils ont toujours compris que ces gens là sawaruñ ci dem élection. mën nañ génn taxaw fii nag mën nga seet fii nit mu naan la. Euh, dañu bëgg a gagné yi ak xaw ma ñaata pour cent bu leen neexee dañuy wax quatre vingt dix neuf pour cent. mais dañuy wax ñoom gëmuñu ko. te ki leen di déglu xam na ne ñoom la ñuy wax gëmuñu ko. c'est ça le problème est-ce que gëm nañu candidature Amadou Ba. non c'est-à-dire ñoom actuellement ñoom ñoo nekk ci posture boo xam ne mënoo cee comprendre kenn Amadou ci boppam moom ci boppam moom uh-huh. moom ci boppam moom xam naa ne moom moom est-ce que comprendre na li mu nekk di def parce que déjà non parce que doo comprendre doo comprendre vraiment le président de la République choisir na Amadou uh-huh. ba fa Amadou dem di xeexali jël Karim mi mi ne mi ne bokkul uh-huh. ay député woom ña waroon tal candidature Amadou bàyyi fa Amadou dem di lijjanti kañu recalé te mu nekk Qatar tëdd c'est quoi le problème à doo comprendre le président Macky Sall ci taxawaay bi mu waroon am ci wetu Amadou. des na Amadou ci boppam taxawaay ba mu waroon am moom boppam moom. en tant que candidat ci imposé en tant que candidat. Mm-hmm. mu mel ni koo xamante ne moom ci boppam bëggul li muy def. Mm-hmm. Karim Wade bokkam mu mel ni li muy def bëgg ko c'est-à-dire da nga dem ba doo <laughs> mm-hmm. da ngay. jaxasoo. exactement et puis li may wax nii ci benn côté bi la. nga dem de l'autre côté mais tu es tu vois un parti boo xamante ne nii il est à fond dans campagne. ñi nga xam ne ñoom ñoom la seen situation waroon gën a compliqué parce que leur candidat Ousmane Sonko est en prison le plan B Bassirou Diomaye Faye qui est actuellement candidat est en prison mhm. mais ces gens là ñoom ñoo nekk actuellement à fond dans la campagne maanaam mbir mi jaxase ko doo comprendre moo tax sànq maa ngi koy wax man leen àdduna mu gudd tànk dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg suñu demee ba waa PDS. di xeex ak Thierno Alassane Sall Guy Marius Sagna ma doon nguufaan euh, kii vote ba. exactement ñëw di leen àtte. ñëw di leen àtte moo wane ne àdduna circonstance bu nekk mën na changer. vraiment à tout moment mbir mi mën na changer donc bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ni ah, moom mooy euh, minn na mën nañ jàpp ni euh, li nga xam ni moom mooy am fële ci assemblée ak commission d' enquête parlementaire bi député yi di daal di dugal loolu mënula impacter benn yoon magistrat yi nga xam ne ñoo nekk fële ca. conseil euh, constitutionnel naka noonu aussi dinañ jàpp ni le soir du 25 février lii di scrutin bi dina am fii ci réew